dama bëggoon tabaski torop torop torop torop bi may nekk xalel mës naa ci fër ba ñu may woowee moutarde mbokk yi nuy leen njabootu euh, RTS man la Pape malik ngeen gënee ma xam ci euh, radio future media journaliste di itam commentateur ci li nga xamee ni moom moo di RFM niki ki tey nag di ngeen xam beneen Pape malik ci yeneen anam léegi lay xam nga yàlla lu muy def sa xol du looy tànn li ma dëggal ci wàllu élevage c'est d'abord le sang parce que bi may njëkk di bëgg xar sama waajur bu góor di Abdoulaye Diaw daf ma musa wax un jour ni xar tooñu la sa tur moo la tooñ. bi ma gisee passionné ci affaire u xar daf ma daf ma delloo ci sama papa. sama doom donc sëtam passion bi di football ak xar. c'est tellement vrai que bi may doon xale dama daan yàqamti moom daka daan xam dama daan yàqamti muy jënd xaru tabax je passais toutes mes journées à Kharbi, Yendo, yendu uti ngooñ uti des rails, des sangs, di changer donc un bon jour ma pourquoi pas également ma euh, poser sama tank qui ci également élevage et comme euh, amna benen beneen muy Serigne Touba muy Serigne Touba ba taxna dama suis am jafé jafé bu magal gi à may jëf mané dina bu ko defee su ma may mën di jëf facilement ñaar yooyu yooyu laa boole mooy cofeel ci xari ak bëgg di jëf ci magal gi ba taxna une pierre deux coups la won noonu yi laa gën a ci xari vraiment dunduguma ben choono bo xamante ni amna ko ci radio bi wala ci sama liggéey ci sport bi ak euh, journalisme ak par rapport ak xari amul ben ben lien la preuve tay bima soxla euh, am temps pour gëna taxaw ci xar yi période tabaski RFM dañ mané on comprend xam nañu laaj na temps donc demal topato say xar bo paré après tabaski tu reviens dès le ci sa liguey donc pour vous dire que ne également ñom wa RFM xam nañu ampleur xam nañu gëdd bi ma jox également ces ces moutons mo waral ba vraiment awma ma ci ben gal encore au contraire au contraire saa yuma amé opportunité gën leen remercier rek dama koy def et je pense que c'est c'est le moment opportun nit ñi dañuy dégg ngay jaay xaru 400 xaru 500 ñu fokk am nga ci lu ah, alors que xaru 400 bi tey booy ci am bénéfice du 30 000 xaru 500 bi du 40 000. xam nañu passion bi ñu am ci waral compréhension bi ñu am ci parce que tey mënoon na ne xar du fi xar du fi et taxul xar ci kër gi di di bruit mais dañuy xam bëgg-bëgg bi nga am même chose pour pour njaboot bi léeg-léeg nga am jënd dese yàlla. mu doonoon tey Pape Malick Diaw di euh, doom ci Abdoulaye jaw bëgg football bëgg xar bi ngeen xamul woon ak xëy na bëgg Serigne Touba bi nga xamee ne mi ngi tàmbalee fës waaye rafetlu nañu encore fois taxawaay bi di ñaanal ñëpp jàmm et surtout di ñaanal ku ci nekk am benn xar waa ñaar. <laughs>